Sonko actuellement fofé nga xamante mom moy e, euh, ci DGE lañu xamlé mom modi ci fiche de parrainage dañu recalé Ousmane Sonko euh, bañal leen ne duñu leen jox euh, ci seen fiche ngir ñu mëna a wutali langue politique yi wut seen i parrainage Pa Assane Seck ban lecture nga am selon propos yi nga xamante mom lañu recueillir ci ci ay défait alors je je déjà dafa am fu ma bëgg tambalé ñu ngi wax waxi recours ak organisation refus acceptation etc. sur ce que j'appellerais du faux le parrainage c'est du faux soxna si. parrainage bi am Sénégal. Madame li a waxtaan naan déposé nous am na machin c'est du faux pourquoi CEDEAO nee na baaxul soxna si CEDEAO C'est na baaxul jaarul yoon tegul ci ni Mohamed, amé warul démé non et etc état au Sénégal lank sont alors pourquoi président Macky Sall. baal rek je parle pas du président je dis une chose manam Sénégal moy dëkk bo xamni dañuy xey di débattre sur du faux wala ma def langue argotique langage argotique sur du pipeau Madame, je mbedd. Euh, xam nga dama am ben sentiment bo xamni dama j'ai mal. parce que damay toog di xool gis ne Sénégal dafa am benn groupe nit boo xam ne ñoo ñuy xool ñun Sénégalais yëpp ci ay bët yéen a ñuy ci ay bët di nu saaga ay ndey mooy mooy sa régime après cela dañuy xool ci ay bët di nu daggal ay ndey du dara si ñoom tranquillement bon fi yëngatu ñun il fonctionne comme ça avec nous et ça fait très mal te yàlla wax la sànq ne la yàlla dafa bind app bind heure mm-hmm. bu heure bi jotee kale kàkk laa def taxaw ak kàmmunti doon na moo tax ñuy ñaan toujours naan yàlla nañu yàlla may fekkeek tal wér wérle mucc ak mujj ga rafet parce que li gën a soof ci àdduna gën a bon ci àdduna gën a wone ak cuune xam nga moo la lan mhm. naagu ci sa doole te ce régime là bu ñu yaakaaree ne mën nañu def lii Sénégalais yi di ba pare muy continuer

nit deful ñu jël ko taxal ko ko ba ne ni ba pare ñun ñu discuter ci euh, déjà je suis je suis horrifié su ma toog nit di expliquer des cours de droit yoo xam even jàngul sax xam nga ne mais ñu war cee di ci waxtaan ñu non le selon l'article X ou Y ce qui dit ce n'est pas cela mais le ministre vous savez il interprète selon aw baa xamee ne ki nga sékkal ni la fonctionné da jar wax jarul débat aujourd'hui la chose elle est affichée lépp lo xam APR Benno bok yakar mën nañ ko def ba Ousmane Sonko du bok loolu mom jarul sax ngay réfléchir ak xel ñaar ak calculer waaye di wax waxi droit sax ci loolu moi je trouve que c'est c'est c'est abusé parce que ki nga sékkal néwul ci droit néwul ci yoon déggoo ma la parrainage bi ñoo discuter téwul ci yoon c'est là ko wax te pourtant CEDEAO mo leen ne da nous sommes dem Niger ñu ne bëreet ne dañuy dem Niger voilà une attitude bo pour moi c'est de l'irrévérence après nous on nous dira oui vous devez respecter les institutions vous devez mais institution qui ka incarné bu respecter wul bopam par rapport à institutions bi respectez bu respecter institution par rapport à institutions institution bi di représenter le Sénégal vit des heures pas possibles moi je dis une chose très simple. Euh... yàlla na yàlla roof baax baax président Macky Sall ci boppam ba mu dellu à la raison soxna si billaahi wallaahi tallaahi abarke salaatul fatiha gàmmu gi nu nekk di ko dund monsieur le président sa doom sa baay moo lay wax defal attention yàlla am na li noo def ni teguwul si yoon xool nit jaay ko doole ba pare après nga ne da am jàmm continuer mel ni yàlla amul c'est impossible mënu leen jël nit teg ko si lu dul yoon jàpp ko ci lu dul yoon takkal ko tuumaal ko ak tout ce qui s'en est suivi ba nu agsi fii tey nga non non du bokk processus bi mooy depuis le départ warut a bokk du bokk on s'arrange pour que mu bañ vous l'avez fait ak Karim Wade vous l'avez fait ak Khalifa Ababacar Sal. ku leen neex jàpp mu leen neexee waa Sénégal mën nañu continuer noonu ba pare après ces gens là nous disent oui ñun oui le président Abaye bokkatul mais day dem mais dina fi teg kenn koo xam c'est pas possible c'est pas possible kilifa bi Amadou Ba bu fekkee dafa bëgg am dara Sénégal xulil. Mhm. bu doxee bilaawu président Macky Sall du ko am ci parce que simplement on on on on on on on ne vend pas l'échec on ne vend pas l'échec on s'appose sur l'échec pour avancer on vend la réussite le succès et sur le plan de la communication même sax baaxul moi je dis tey bu ma conseiller kilifa bi Amadou Ba dama nan ko non monsieur Ba gennal ci loolu parler d'autre chose ce discours bu mu dem cheikh ci ce qu'on a réussi nous allons non parce que bu boba ken du la déglu mënuñoo ko déglu sax en plus ci loolu je dis une chose Ousmane Sonko da wara bok sauf que kep ko xam ne nga Ousmane Sonko na la leer ni ñii dinañu def luñu ñu mën ba Ousmane Sonko du bok manam mu leer ci sen bop ay recours ak khulil recours euh, interprétation. Non, vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit niet. Donc, est-ce que vous avez confirmé que Ousmane sommes actuellement en âme et conscience que nous sommes présidentiel La direction générale des élections. amour, maqaamay bañ a joxe lu ci des waaye nee des conseils. ay consigne ki ko jox consigne tegu ko si yoon conseil constitutionnel moo la mën a wax ne la doo bokk lan des yow process mi, bàyyil mou àgg rek ba dem bi parrainage pourquoi au-delà de, de, la CDAO, en 2018-2019, Binka préparé, 2018 je pense, qu'est-ce qui s'est passé Nous a dit qu'il y a trop de partis. C'est ce que nous avons Le trop de partis, il faut le dire que parti bu nekk dañ lay jox autorisation. Mm-hmm. des lay jox papier. Mm-hmm. agrément licence on peut l'appeler comme on veut da le dem ministère de l'intérieur ñu xool enquête ne kii kat ñii la àndal nangam nangam nangam benn pas asan un peu de temps. jabaram ak doomam ak ay gorom ne wuy parti bi kii mooy secrétaire lii ki mooy yore lii xuli ni ma wax ñëpp ay bokkam lanu ngeen jox ko parti bu dee parrainage rek nga soxla le parrainage c'est en amont maanaam yow da nga ñëw pour créer parti non yow waro am parti parce que nekkuloo dans la norme mais tey kooku nga xam ne amul droit am parti muna am parti nous permettre à plusieurs personnes nous en non non sur deux ans trois ans on s'est arrangé pour une pléthore de partis politiques pour justifier quelque chose qu'est-ce talent Bobo, ce semblant de talent là bien nga xam ne APR am ko ci ci bloqué ci coince Mais, mais mais xel de def ko ci ligue bi le Sénégal bu du fi discuter APR kon kon ku jox que da nga dans compte ñun non non non ak suñu ay morom yàlla dafa bëgg dëgg ñun mënuñu célébrer Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngën di mindeef anniversaire am bu rëy bii toog fii di wax loo xam ne xalaatuñ ko nu ko te du dëgg dëgg dëgg bi benn dëgg moo am senegal mooy nguurab APR benn Bokk Yaakaar neewuñ si dëgg lu leen neex la noo def faale senegal yi respecté wuñu weguñu fonkuñu am am teraanga jaay doole lañ nekkee ñun dañ lay koromp buggoo ñu koromp la ñu jaay la doole on n'est pas des esclaves nous ay des duñu ay dëmm duñu ay nous sommes des ma duñu ay nit yu ñoo tooñ duñu ay nit yu duñu ay nit ay quoi nous sommes des êtres humains dotés de raison xam ne lii la moi j'ai mal quand je regarde le professeur ben, Ismaël Madior. yan yan yan info instruction lañ war a mën jot yu monsieur Tafé, euh, wax a la que nee na la administration instructions alors que l'administration, mais acteur politique warul dominer administration. Sauf qu'au Sénégal, comme on vit et subit le drame sénégalais du présidentialisme fort, nga avons 1962 nous nous sànq Nous nous sank régime parlementaire ak Dia régime présidentialiste fort Nous jural ñu li ñu bataille ba ba opposants ki ci a jël réew Sénégalais programme di présidentialisme fort le régime parlementaire tant que équilibre ni ku ñëw falu nii rek la ñuy dundee dinañ ñu jaay di gis parti opposant yëpp ku ci tok bo xefee bu la yalla dimbalewul ni ngay dundé ak ñun et ça il faut que mu arrêté tey ni euh fiche bo xamni ne da nga ko wara joxé yow amo décision bloquer nit bi jox ko ko. mais pas ça est-ce que bu fekkee ne instruction la jot. Mhm. ka ko jox instruction instruction kan la parce que Sénégal da ngay nekk ci administration boo defee li nga war a def ok ki la sant def loolu li mu def ñu jël la affecté la et cetera et les gens ont peur